ma nekk faak ku ne xamoon nga Mariam Marianne euh, Dakar FM. Mhm. waaw moom ma fekk nostalgie ni ma la télévision a besoin de toi man ko moi mun ma waaw ñu ànd dem ma dem bureau ma dem bureau euh, Baal. Mhm. mun ma c'est une proposition nangam nangam wax ma yëpp daal. Mhm. man leen oui bien sûr. ñun ma ah bon tu viens demain ma ñëw ñun ma tu fais du direct xanaa xamoo man lu ma mën def direct ma ko gënal. man li nit ñi ragal moom laa bëgg. non maman dafa bëri fayam. non man li nit ñi ragal laa bëgg man ma ñëw ñun ma tu fais du direct ma ne amul problème. Mhm. looy wax man leen mën nañu waxtaan du jeex. kër yi li ci ne du jeex. Mhm. xale yi jeunes talents yi mujj nangu émission bi les jeunes talents. Mhm. affaire santé bi daan naa ko wax. waaw kii sant Ndiaye bii Sari Ndiaye la xaw ma waajooju sant Ndiaye. tey def loolu garab yeeg te ñu naan day xeesal. ah, ah? sëñ Bass Ndiaye waaw <laughs> sëñ Bass Ndiaye dafa daan ñëw ne ma kii bi ndeysaan man ko lan la mun ma li ma jàng fii sama maam laa daan àndal man fi mu nekk nii ma xool ko ba yaa ni ko waa demal boo soloo bu subaa nga ñëw mun ma ah moo ne sol naa de <laughs> ndeysaan man ko ah non dama xamul ne ndax da nga pare pour def émission tey mhm. mun ma pare naa man ko ñëwal ñu dem ce qui veut moom dafa daan ñëw après ma ni kii ku ko jàppale dana dem mhm. ndax li muy wax nee na bu maamam daan gas garab day ànd ak moom xam na li maamam daan def li papaam daan def may wax ci sama xel naan leen kii moo tax bi ma ñëwee ba gis ko mu mel nii man bettu ma daal. Mhm. ndax li bëgg-bëggam la te da cee topp te dafa dafa dafa jaamu soxlaam barka laa jëmaale. waaw. donc euh, maman ñu gis mhm. tam jamono yi mhm. nekkoo nekkoon Sénégal gëjoon nga fi lool est-ce que mën nañ xam raison départ ce séjour euh, Europe. non j'étais feebaroon waaw. xam nga feebaru Sénégal mooy feebar bi gën a neex. sauf sax suukar. nga jabet bi jabet bi. moo yàq ñëpp. léegi ñëpp a jabet siddi la siddi la siddi ba nga mel na golo da lay siddi ba ku la romb naa la ni di la xoolaat <laughs> est-ce que moom la wala du moom di la def nii. Uh-huh. ah un bout temps. nga gis mu daal di reprendre nga commencé at am yaram. nit ñi naan pour temps moom la de jabet tamit ku moo tax maa fii ku ñu xool ba ni la yaa iñaan na jabet xamal ni xasan la. ak <laughs> a soxor ak a bon jabet. mais macha allah elle a bonne mine mi ngi nii. macha allah alhamdulilah sant yàlla mais aussi. et puis dañuy fabriquer ay wax. Uh-huh. moo dañu daan wax Euh, on m'appelait pour me dire tu vas mieux j'ai dit oui je vais mieux. maa ngi sant yàlla de maa ngi sant yàlla de alhamdulilah dama demee nag. waaw maa ngi sant yàlla. waaw gis nga de gars lu nekk wax nañ ko ci réseaux sociaux yi. waaw ah, waaw voilà maman nee ne dafa dafa dafa dafa paralysé ñii naan mënul wax. na naan mënul wax waaw mënul wax ko. c'est vrai ak naan buy dox de sa kii sama xale bi dafa jógee daal ñëw xool ma ni ma ay man comédien sa ma mun ma dañu ne moon boo jox da ngay sëgg man ko lu ne lañ ma waxal ay sant yàlla yàlla ñi sëgg ga lu ma leen mamaa ngi nii dellu ah. na ci ay 18 ans bu ñu kenn sonal 18 16 ans yow tam 16 ans nga naan 18 ans 16 ans. dañuy ñëwaat rek ci rumeur yi nga xam ne réseaux sociaux yi wax nañ ko ah. comme que temps yi nii passé tam gisoon nañ tam suñu papa Golbert nga xam ne tam moom tam def na lu nekk ci aar bi ah. dëgg dëgg gars ñu si bëri dugal ko si réseaux sociaux yi ne euh, Golbert Golbert Diagne dafa gaañu. affaire yooyu dana dund 100 ans. Diagne loolu reyu ko de la ay bu ñu xamoon Diagne. Mhm. nañ ko ba Diagne loolu reyu ko de Diagne dana dund 100 ans. xaritam moo gaañu woon. alors ñu daal di gis. Euh, Diagne euh, Golbert en deuil au lieu ñu lire la tane yëpp. moo mhm. tax information bala nga koy véhiculer na la leer. bala nga koy wax na la leer. Mhm. xaritam moo gaañu woon. Mhm. léegi rek ñu daal di ni Diagne la waaye Diagne kooku jot bakkanam la loolu. lay ko def sos lañ mën de sos wax lu ñu xamul. wax lu ñu xamul rek lañ mën mon dieu donc maman nga nekkoon Europe lu yàgg tamit temps ah, est-ce que ah. mën nañ xam exactement Europe seen mode de vie ak fii nii ndax différence bi demee na noonu danaa la wax leen ne nee naa leen jigéen ñay sa Europe mhm. bu seen doom amul barke benn doom doom barke mhm. xale ya ñu puudar mhm. taluñu pastalu ñu ngi ci bot yi ñu ngi ci mantu yi ñu ngi ci glace gi daw da ngay xëy 6 heures crèche pour xale yi nga xëy 7 heures nga jëm école jëm école nga doog a daw dem sa liggéey da ngay ci ñëw jëli xale yi crèche profité def togg li ngay togg dafa man sama goro dama koy xool ba ak ma yërëm ka sama goro sama jabar doom la ma ko xool ba yàgg ma yërëm ko day dem day daw droite daw gauche day dem ba loxoy yi uh-huh. mais te dana toppatoo doomam toppatoo këram na mu mel. ba mu baax moo tax ma ni doomu Europe bu bu tekkiwul doomu Europe boo xam ne rek amul dara du du bare de ndax jigéen ñi ñu ngay sëy te nangu nañu wax dëgg yàlla. Uh-huh. am na ci nag ñoo xam ne dem nañu dootuñu ñëw. <laughs> ah waaw waaw waaw ku nekk la la yóbbu ah bu dee danga dem pour foo fekk fa foo gisoo ndey gisoo bàyyi booy foo da ngay fekk ñay foo dañuy ànd ak yow mhm. day gën a neex rek mhm. ngay foo mhm. dootoo ñëw fii te seen yaakaar yëpp sa ndey mi ngi Sénégal xelam yëpp a ngi ci yow waaye am na nu muy demee bu la gisee billaahi wallaahi dootul wax dara ku ci am jom nag am fulla am fayda dem tontu baa ngi Sénégal tontu bi. tontu baa ngi Sénégal ku ci def mel noonu dangay mel na Adama Gaye dangay mel na dangay mel na ne Sow sama doom dangay mel na xale yi ci Luxembourg yëpp ku ci nekk seen tonton ngi Sénégal. ndax dangay dem liggéey. wut loo am boo dellu si fii ci Sénégal ñoo xam ne ba ngay dem liggéey nga waaye am na ñoo xam ne du duñu ñëwati dañuy dem sax ba dootuñu woote. waaye am na koo xam ne na ma frère am ça fait 15 ans amuñu benn nouvelle on n'a plus de ces nouvelles on sait pas s'il est vivant ou bien xamuñu. Mhm. parce que am na foo xam ne moment boo xam du ñu bëgg sax ñoom ku leen xam wala ku leen xamal. am na am na ça am na Europe neex na mhm. metti na. neex na metti na. ci mhm. travail nga lekk da nga ciy génn. am nga say euh, facture da nga koy fay. bu cumuler ñaar ñetti weer ci problème ngay dugg. moo tax dañuy liggéey dañuy liggéey fay kër dañuy liggéey lekk dañuy dafa metti mhm. ku ñu ci may cinquante euros Sénégal na bu ko xeebati nangu leen rek bu leen mel na man de dee leen nangu ndax liggéey ba metti na glace ga metti na trop gis nga ko ci ñëw Sénégal mhm. boo ñëw valise yére bi nga indi dagg étiquette yi boo koy sol ndax doo tal solu taloo solu mhm. fii la ñu ñoo toog ñetti fan ñeenti fan diwu kanam yi leer ñu def cheveux yu baax def xef yu bët daal doogu génn nga dégg ñu lu la dunduñu ma leen dund leen koy doom <laughs> dunduñu balaay dunduñu fii daal Sénégal rek jàmm a ngi fi te nag am na la ngay daw di ko wuti Europe di ko fa nangu boo ko nangoo Sénégal toog liggéey di ko am. mais est-ce que jotul tamit jeunes yi nga xamante ne ñoom dañu dañu def seen bopp bi rek ne Europe rek rek rek foofu la foofu la buntu tekki. moo est tam ñu toog fii nii seen dëkk. loo ci bañ liggéey fii nii suñu demee lu. lu ko raw liggéey foofu. lu ko raw ngay nangu da nga ciy gis ku fi nekk fii dem dikk bu sañsee <laughs> sol dal yi nga bëgg day raxas ndab ba loxo woo koŋ. ah waaw su doom bi nee na déedéet de. ah yaay yaay laa day raxas ndab ba wow koŋ uh-huh. am na ñoo xam dañuy raxas ndab ba wow koŋ seulement uh-huh. boo raxasee ndabit am na lu ko jar uh-huh. fii boo góor góor góorgóorloon léegi du góor ñaa ngi togg foo dem fii léegi du góor ñaa ngi togg am fay fayda def seen association di togg te fee boo demee man nga am doo togg di tubaab yaay togg waaye yaa leen di raxasal ndab yaay raxas kaas ya yaay dekk challenge ba yaay def lii góor boo fi noonu léegi kay fóot nday bañ te pourtant ku fi génne woon léegi société teg say paan kuy fóot lu ñëw Sénégal am na ñoo Attends Sénégal ngi dem ah oui mi ngi euh, émergence bi euh, Macky Sall woote mi dem de. xadi loo wax ci émergence ngeen loo waxal loo waxal Macky Sall ci émergence. dama ne yaa aéroport Ndiassab. Ah. nga tuddee ko bees jaañ. jëlal na Sénégal Macky loo du dese. nga ñëw Dakar eh, foo jaar eh, Macky loo du dese. comme yaa ngi di tel yaa ngi makiloon mu désert mm-hmm. ay taxaw na gendarme yee. waaw waaw. loolu la waxoon nag. lii de géer du ko wax ah, géeyal rek a wan lii. yéen daal li ngeen am yéen Dakar Buzz kenn amu ko. li ngeen am Fadel la. Dakar Buzz yéen rek a ko am. waaw li ngeen am moom fii Dakar Buzz yéen rek a ko am. Dakar Buzz rek la am. yéen rek a am ah, de mais bii. Mm-hmm. yéen a ci tombé. Mm. fekk mi ngi doog a ñëw. day ñëw rek ah. maman ba tey si société bi gis nañ ne tamit léegi jamono jii nii. Mm-hmm. divorce yi bëri na torop torop torop dangay gis ñooy xamante ne dañuy marié même pas une semaine sax mën naa ne léegi lu ne am na fi une semaine ak un mois mariage deux jours sax da ko fee gis. dëgg xam nga loolu boo ko gisee. Mhm. xale yi bëgg nañu sëy mais mënuñu sëy. Mhm. dangay sol sa robe de mariage sol say ndokket say yëf maanaam yaay doon sa mannequin mariage <laughs> sañse solu dugg génn orchestre bi ñëw cadeau yi ñëw mais la war di jabar war ko def doo ko def. mais léegi xale jigéen ñi sa réseaux sociaux yi sax dafa mel ni ñoom la ñuy sëy waaw déggu li ma boo sañsee doo xaaral sama jëkkër laa koy wax non non snap bi nga koy wax koy def dëgg la Instagram bi mais ma ne bëgg nañu sëy dañoo mënul <laughs> parce que dañuy bëgg awantu yàkkam ci sëy am appartement beru est-ce que du tam parents yi la tamit parents yi rien du tout lu ñu def genre est-ce yi tamit yar bi desul non yar nañ leen xale yi ñoo bëgg beru <laughs> te xaleel boo teelee beru musibaam ku góor ki bu meree nga mer ngeen tongo xëcc xëcc parce kenn du tongo di xëcc ba mu yàgg tongoo xëcc ba mu yàgg bu yàggee day dagg boo nekkee mag nga tongoo lan la yow gis naa la kat waxoo sa jëkkër tey nga ni moo naag ma la bu ñëwee neexam ko kenn du tongoo sa jëkkër boo waxee sa fulaak sa fay dana jeex mais on est ensemble ay jeunes lañu nga mer yëg sa bopp ma mer yëg sama bopp bu yàggee day dagg ngay góor wuti la neen ma yëg ko day metti da façon rek a ci am xale yi dañoo teel a beru beru bi mën na nekk waaye dafa teel toogal ba nga am sa benn doom wala am sa ñaar doom dem su ko defee di nga am occupation sa sa jëkkër dafa bëgg nga di ko toppatoo t'as même pas le temps t'as même pas te moom bi mu lay takk dafa ñëw bëgg koo toppatoo mais parfois tamit dinañ bëgg sëy mais goro yi goro yi ñoo bàyyiwul léegi waaye yow mooy goro bala ko gis xanaa ngeen dëkk léegi xale yi dañoo tàmm beru xale yi ñoo tàmm beru te ku ci dëkk ak sa yaay jóge fa dem ñu yóbbu la ci keneen def ko sa yaay mhm. li ngay nangu sa yaay ak di ko muñal muñal ko yaayu jàmbur. Mhm. ki la yóbbu ci yaay ba c'est pas éternel. Mhm. mais di nga togg yàgg na bu yàggee ñaan na yàlla am loo xam ne man ak sama jabar sama njaboot ñoo koy am. Mhm. mais takk naa la tey déedéet du ma dëkk ak sa yaay de du ma dëkk ak sa yaay de du ma dëkk ak sa. man mii dama koy wax de parfois. ah mbokk juum nga dëkk ak goro. dama danga juum non danga juum danga juum. dangay dëkk a goro doo juum li nga nangul sa yaay nangul ko goro mais yow ki nga xam ne dafa bëgg sa doom ba ñëw sa ci kër gi téye ko sa bëggul sa doom yow la bëgg. Mm-hmm. ndax da nga defar sa doom mu gis ko bëgg ko di sëy moom mu bàyyi yaay ñëw ci yaay. Mm-hmm. waaw téye ko comme sa doom ji ci biir kër gi. Mm-hmm. loolu tamit am na mais goro ak golo moo am. Mm. goro ak golo moo am. waaw ndaxte bu fekkente ni da nga si nga lal dara sa doom dara bi nga jënd mën nga ko def ñaar. waaw yow ah mbubb mi nga jënd si jabar mën nga ko mel ni sa wujju daal waaw mel ni wujju boobu mooy golo bi parce que mooy golo bi li nga bëgg li ngay am daf koy bëgg am mais goro bi day am sax situation yoo xam ne da ci toll am na lu mu daan sol te tollootul ak jamono. Mhm. da koy lem jox ko góor jox ko jigéen warulaa teg bët du la teg bët mhm. da lay comme doom loolu mooy yoon mhm. mais bu fekkente ne te nga ko bët te ne dama leen di yàgg wax jàppante leen ak goro yi nañu jàpp goro yi mais yow bii sëy si tamit bàyyi yaay fekk yaay <laughs> def ko sa yaay def ko na sa yaay mais boo ko deful na sa yaay te yaay boo gis mu toog ci place jur doomam mel na mu war a ne doo lu la mos a neex mhm. du mhm. moo tax nag ku bàyyi kër fekki kër bàyyi yaay fekki yaay ko téye ko na sa yaay mhm. ki ñëw ci yow bàyyi yaayam ñu ci yow def ko na sa doom point yëf yi neex mais sama goro bi ma dëkk ak moom man damay non non non je peux pas être victime ah. non non moo yow xale yi léegi ñoo jàppee seen bopp ay tubaab daal daañu dee duñu doon tubaab tu sais comment je les appelle uh-huh. les vaches folles <laughs> les vaches folles ah mais oui loolu laa leen woowee parce que <laughs> nekkatuñu wolof ne ci diggante bi amul amul amuloo jikko tubaab bi amoo jikko wolof bi ne ci diggante bi c'est de àddina day yàqu dana ci xale yoo xam ne dañuy jàng ba yeeyi kayit mënuñu fexe ba mu jëkkër benn seen wax du neex parce que ah. dafa naan dooma yàq j'ai tout ce qu'il me faut j'ai tout ce qu'il me faut nangam nangam dooma yeb nangam nangam tu vois lu bëri manqué na leen. mais bien sûr. Mhm. léegi nag jëkk jooju da leen di tëdd xalaat doo takk koo xam daf naa la non je m'en fous que tu sois bu guddi jotee mu demal la fast food indi la benn burger wala shawarma. ne la lekk mbaa ñu daaj la soow mbaa mais ay yii ak waaw waaye ah bana na de waaye jigéenu Europe yi de macha allah seykat lañu. Mhm. seykat lañu moom macha allah. yaakaar naa ne message bi am na solo ah. si message boobu rek ñoom si seeni jamono yooyu lañ doon véhiculer ci nga xamante ci li nga xamante ne mooy si seen i théâtre et tout. Mm. gis nañ ne tam téléfilm yi léegi gars yi dañuy dem ba jéggi frontières yi su ma nee jéggi frontières yi nañ dem bay wane ay images yi nga xamante ne mën naa ne du jekk ci xale yi ba. comme niñ ko gisee woon ci am na benn série ay ay série sax yu fii am ba ay ONG Jamra ñoom ñëpp dañuy nekk di ñaxtu lool noonu. non xam nga ma nee naa la léegi. Mhm. ñun bu njëkk dañuy toog dangay toog di ñu seetaan mën nga toog ak sa doom. toog ak ñëpp. yaay par contre léegi dangay gis kuy sangu so bain euh, de bain ne ci piscine. Mhm. da ngay gis koo xam ni day def soutien kese nga nekk ak sa papa nekk ak sa yaay. ngeen toog dootuñu mën toog seetaan ak yow. Mhm. seulement nag cinéma dafa fekk ni mhm. théâtre bi tamit dafa. dafa évoluer dafa évoluer. Mhm. te nag àddina buy dox da ngay dox ànd ak moom. lool la xale def ñun xëy na ñu ko woon def nanguwuñu ko. mais génération bi ñoom ñoom ñu ngi koy def. te sax defatuñu sax booy seet ay ay théâtre ay film la ñuy def. ay film uh-huh. waaw je me rends compte ni léegi ay film la ñuy def dañuy def ay cinéma je veux dire cinéma la ñuy def boo seetloo léegi cinéma moo ci li ñuy def. waaw loolu laa ci gis. mais est-ce yaakaaroon ne tamit jot na même bu fekkee ñi ngi def cinéma sax ñu indi tam li nga xamante ne yéen yéen a ko doon joué ñu indi ko tuuti. du ñu ko def ndax nee naa duñu ko def ndax génération bi. génération bi beneen génération la. waaw génération beneen génération la addina day dox ñoom ñu ngi dox ànd ak addina. mais bu doon sama sogo dañuy cay jël lu baax la nga xam ne nag baaxuñu teg ko ne li mhm. ndax ci génération bu dox bu ne am na lu baax am na lu bon. Mhm. ndax ba tey da ngay gis sax ah, même su fekkee génération bees bi ñu ngi seetaan ay téléfilm et dafa am ñoo xamante ne ñoom. jamono yu njëkk ya moom la ñuy dund ba tey am na suñuy morom yi nga xamante ne ñoom du ñu sax seetaan téléfilm yi yéen seeni jamono la ñuy dund ndax dañ ci am lépp nga xamante ne da leen am na ku ma wax loolu am na ko ma ni lu ma mos a joué mi ngi ko denc mhm. li ma mos a neen ma benn yoon laa mos toog ak suñu waa kër ñu toog mais bi ma gisee kooku wax ba gëdd jëkk ci xaw ma daf ko giflé xaw ma la moo wax mhm. man que ah boo mun na waaw mun na alors je me suis c'est pas intéressant parce que yi mm-hmm. jàngaluñu dara mm-hmm. ndax waxe sa jëkkër gëdd ko mbaa nga ñaf ko pes mm-hmm. mun nañu li jàngaluñu dara ma ne nag mais àddinaa dox te xëy na góor ñi lañ daan bañ démb ñi lañ koy nangu tey damaa sonn góor ñi tey waaw <laughs> ah ku nangu rek di ah, ñi ñaf la pes di waaw ah non laa fi gis di naa fa lii ak dëgg la sànni mbaa ñu toj kaas. Ah, waaw ñu dañuy kilee dañuy mer <laughs> loolu la di. loolu laa gis bu ko nga neexal borom. genre Malick yi sama cadreur ah. bi genre yi. xam nga ne ah. moom bu amee jabar dañ koy jàpp di ko métti rek ndax daa yemoo. ah Malick nga tudd de. Malick nag moom. <laughs> Milkzo kon Milkzo. waaw boo boo nañ ko pes waaye moom moom moom. <laughs> gis nga maman avant nii la woon rek gars yi ñëpp dañuy toog en famille seetaan théâtre parfois loolu daf ñuy manqué parce que léegi. mën naa ne famille yi amatul communication diggante yaay ak est-ce que loolu moo tax sànq ma ne la léegi éducation bi moo changé amatul communication amatul ndax téléphone yi kër goo dugg ku nekk ngi sëgg boo ne bonjour sax mu ne bonjour sëgg nañu yaay papa ñëpp nii kenn toogalatul kenn uh-huh. waxtaanatul uh-huh. téléphone yi musiba la ci kër yi di uh-huh. waaw waaw xale yu ndaw ya ña nga naan nii ña nga naan ña mënu sax ña nga naan nii naan nii naan nii mais non dañuy nangu mardi mardi ay mardi vingt heures je pense que vingt heures mardi vingt ñu ñëpp toog jàkkaarloog télé di seetaan théâtre xam nga loolu dafa neex daal dafa neex da mais ah. léegi nag euh, yi moo leen yàq téléphone yi moo ñu yàq téléphone yi yàq xale yi ci juddu sax dañoo muus macha allah <laughs> da nga gis ko am un an nga gis ko mu naan nii kii bi dugg pour seen jeu def ni ma di leen xool di leen ay doom yi bu ngeen ñëwoon Sénégal doomu at at rek nga nii nii tablette ay doy na waar de la c'est la nouvelle génération ci le 21 février ah naa ne date boo xam ne ma de suba la de suba waaw Wally Seck Faramareen bi sama doom ji moo koy tëgg mhm. Wally sama doom mhm. sama xarit mais pourquoi choix Waly Seck parce que je mhm. dire dañu doon wax affaire pour Youssou mais Youssou sera absent le 21 mi ngi tëgg Bamako waaw léegi nag man comme Waly sama Waly mhm. man maa yaayu Waly yi mel ni yow man maay maman Waly yi loolu laa njëkk wax fële Luxembourg uh-huh. bu ñu waxee mère Waly man leen maay maman Waly yi <laughs> man maay maman Waly yi man maa ko bëgg daal mhm. di ko ñaanal yàlla li mu sumb yàlla nañ ko sumb ci bisimilah ak ak ci alhamdulilah sama doom jóge ba Luxembourg ni daf may sargal may wax xale yi nga xam ne seen yaay jaar na ci ci aar seen papa jaar na ci ci aar bu leen ci xaar kenn jóg leen lu ngeen ci jógee yàlla jàppale leen ndax ku jóg pour waajur yàlla jàppale la may ñaan ci kàttanu yàlla ak mbaaxu yonent bi ko ci bisimilah mu àgg ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla suturaal ñu yàlla làq ka fa làq agul lafal ko cat waaw fa mu bëgg àgg nag taal moo ko xam moo sama njaboot yëpp yàlla leen yàlla taxaw taxaw njabootu bépp jullit moo bokk xalaat ak yéen sa doom organisé ko waaw waaw na mën naa ne sax c'est rare nga jël sa sa yaay ne danga koy saaga c'est pour ça que j'ai lancé ce message voilà moom tax moo tax ma wax message boobu mhm. daal ni ku ci sa yaay nekkoon wala ci bul xaar kenn mhm. jógal rek boo jógee yàlla ànd ak mhm. ndax ku jóg pour waajur doo ko réccu doo ko di ngay feebar doo am ku la faj nga gis non c'est c'est ah fii c'est très dur c'est très dur. mais loolu ban ban ban ban ban yëg-yëg nga ci am. a ah, yëg-yëg moo di bu dee yàlla may na la nga am doom ju la mën faj. sant yàlla la mais ñi nga xam ne amuñu doom ju leen faj nag. Mhm. man bi ma fi sonnee samay doom ñoo ma yóbbu ñoo ma faj. Mhm. je n'ai vu personne. ce qui veut dire moo amuloon doom bu ma taxaw damay sonn. Mhm. am na fi ñoo xam ne ñu ngi fi ñu ngi sonn. amuñu ku leen dimbale am na ci ñoo xam ne ñu ngi fi sonn gisuñu sax ku leen ni te te pourtant def nañu lu nekk ci théâtre moo tax nag bu kenn xaarati kenn ministre de la culture ah mooy suñu ministère wax dëgg yàlla war na mën a nemmeeku ñi nga xam ne feebar nañu ñi fi nekkoon nekkatuñu fi. Mm-hmm. vraiment ñu nemmeeku leen. Mm-hmm. gis nga ko fi feebar sax bu ci Marème Faye Sall jàppale day metti mm-hmm. yaayu ndoxandeem yi ki nga xam ne mooy càmp yàlla la yàlla fal cat njool mu ndaw tàpp saan. daa mel ni Marème Faye dikk na de. waaw ah! <laughs> première dame ah. première dame ñëw na ñëw na ñëw na première dame dangay waar. ah dafa baax ñëw na. dafa baax ñëw fii ci man. ndax ndax ndax ndax kii na daal barke Alaaji Maalik ñëwul. gisuma kenn gisuma kenn ah ñu ngi woo première dame tamit. xew ni la de gisuma ko de. mais waa RTS nag nga xamante ne def nga fa lu doy waar. RTS dama dem dama dem ci buntu ba sax ñu ma duma dugg. ah loolu nu fa demee waaw ah, loolu day am. ni ma on a reçu des consignes. mais xam nañ la ah, fi nga nekkoon mais dañu ni bu kenn du dugg man leen wax ngeen dëgg ana directeur dafa voyagé bind naa directeur yónnee naa ko sport yi. wax naa ak secrétaire am woo na ma woo naa dem nañu dikk nañu def nañu la mais lii ñoom ñoo ko waroon couvrir mais tey tey nag mm-hmm. euh, euh, Youssou Ndour moo jël yëpp boole mm-hmm. ñoog doomam doomam ay def yëpp macha allah mm-hmm. ñoom moo tax ma ne leen yéen yéen TFM yéen fu ngeen yéen ay tey fu ne yéen ay fu nekk boole ka nag fulla ak fayda ba pare te du ngeen manqué kenn mooy TFM da ngeen toog waaw RTS man yaakaar naa ne sax même bu fekkee mosoo fa liggéey musoo fa woon liggéey j'ai fait 16 ans waaw 14 ans mosoo liggéey sax def nga fii ci Sénégal loo xamante ne ah, yaakaar naa ne waroo ñëw si benn presse wala nga ñëw si benn kër bi nga xamante ne kenn teewuma fenn consigne duñ la téye fenn kenn teewuma fenn barke sañ mhm. Si Malick sama góor gi mhm. kenn teewuma fenn mais la RTS on m'a fait ça mhm. waaw ñu ni ma nag c'est des consignes Racine Talla woo naa ko woo naa ko jotuma ko secrétaire am jot naa ko wax nañu am nañu def démarche tout mais parce que lii ñoo ko waroon couvrir defuñu ko Youssou Ndour joxe na avalam Birane def ci li war yëpp macha allah ma leen di sant di leen gërëm TFM. waaw fi ñu bëgg ak yàlla nañu fa àgg TFM yàlla na doon teefi teefi teefi teefi teefi yu baree na ko sañ na ko yàlla na ko yàlla def ci barke laa ilaha illallah yéen itam Dakar Buzz kontaan naa ci yéen seen buzz metti na de yéen a fi ñëw am fi buzz bu kenn amul. am fi buzz bu kenn ah, ko damay bàyyi maman mu tàggatoo rek. woo ay mbokkam ay xaritam ak ay am di jàmmam rek ci suba nga xamante ne moom lañ koy sargal fee ki nga xamante ne nag mooy le Golden Boy de la musique sénégalaise. nee naa samay samay sang samay sang laa jëkk woo. Mm-hmm. jiital ci Matu gay kër ab Ablaye gay mm-hmm. boole ci Binta Gaye HLM ak rakkam waa kër Ousseynou Rugi Gaye mm-hmm. Nene Gaye man famille Gaye yëpp dama bëgg moo gëstoo gis leen sama xel daal mooy sama wàllu kër yaay ku sant ko nag diggante Fuuta waalal de laa wax. dugg Mauritanie. dem ba Gambie jóge fa dem ñëw ba fii ci Sénégal ku fi sant ko mi woonaal di woo Moussa waalal de. ki nga xam ne mooy maire waalal de. ne ci xol beeg ne ci xef yi Seydou Sow ndax koo jox fu mu dëkk ba bëggal nga ko lu baax. Mhm. ma lay ñaanal yàlla Moussa yàlla li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal Moussa Walal de maa koy woo mhm. dimbale leen ma ci Moussa Walal de Moussa Moussa Sow Moussa Sow ñu ngi lay woo ah, ci bés bi dëgg-dëgg ak Penda dem jabaram ak Penda dem jabaram dañoo baax macha allah may ñaan daal yàlla na yàlla fal cat ñëpp mhm. yàlla na yàlla fal cat ñëpp Dakar Buzz fa ngeen bëgg a ak yenn ko xam yàlla leen fa yàlla yóbbu. ci barke laay laahi amiin amiin merci ma fille je suis vraiment non naa. <laughs> suñu yaay la maam la ah comme niñ ko niñ leen ko waxee woon rek man moom émission la bi nga xamante ne dañuy ñëw fépp fu ndaanaan ci biir Sénégal nekk nañ la fi fekk amal ak waxtaan bu am solo tey yaakaar naa ne waxtaan bi du pertement benn yoon ndax ki ñu fi fekk ndaanaan la def na fi loo loo xamante ne mën naa ne ñi ko fi def si biir Sénégal bariwul te mi ngi nii ah bi ñu ko soxlawee tamit mu am disponibilité bu baax a baax a baax leen di euh, remercier rek remercier internet yi nga xamante ne ñooy doon euh, seetaan di remercier samay quatre heures nga xamante ne euh, Malick la ak euh, Lamine ñoom laa àndal tey àndal ak tamit ki nga xamante ne mooy Fadel Niang ah, borom euh, borom le 16 ak Hamza di di leen jox dig daje rek beneen yoon ci beneen émission man ak moom Ndiémé moo nekkoon a la présentation mais sañ sa maman bi bi may ñawal ma penda wax dëgg yàlla ci yii de la may génne naan ma yaay danaa la chancel ba mu rafet ma penda yàlla sa loxo wér mi ngi nii mi ngi nii si Mariam la waaw waaw Mariam la ñii Mariam la mi ngi nii de léegi la fi jógee. musóor bi ku la musóor. na sama bopp. lan man maa musóor sama bopp yow maman dafa bëri fenn. maa ngi musóor sama bopp ah maa xef yi sama doom a jóge Luxembourg moo ko indi ñaata. waaw waaw Marie Madeleine waaw waaw waaw ah. <laughs> ku ma def ci na xalimaar la tudd jóge ba Pikine bëgg ma di sama rakk yàgg ci man lool. Mm-hmm. maman dafa bëri soppe nag dina ko fàlloo. doomu fàlloo bee ca Amérique nga xam ne maa ngi koy woo. Mm-hmm. fàlloo di magam